ah asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop mbëkk mu leen di nuyu boroom yàlla yi kese barki bi mal xaaba lakk ba Moussa Ndiaye ndeysaan moo war a dem fan Qatar noonu loolu loolu dina rëy Moussa Ndiaye damay laaj kañ la remplace Sadio Mané wala kan loolu laay laaj ci man beneen bi nag musaa santal yàlla bu baax a baax wuy ma olof Ndiaye nee na aawoon na la jig bu la aawa jigéen loo dugg mu yomb ne aawoon na la jig sa aawa bi jig na la yow may la soxna tey démb démb laata gudd jot ñun la Moussa Ndiaye yaa war a dem Qatar barki yow man xiyaama lakk bari yàlla na la yàlla lafal cat noonu la àdduna lépp lu lépp lu doomu doomu aadama nekk rek gëm-gëm la waaye nag Sadio Mané ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla taxaw yàlla la yàlla sàmm yàlla na la yàlla aar adduna amul solo àdduna noonu la beneen bi fi ma koy tëjee fenn la. Moussa <laughs> góorgóorlu bu baax a baax bu dee yaa remplacé yaa remplacé Sadio loo mën ci góorgóorlu na nga ko def. tey Moussa ci conseil bi boo remplacé Sadio ci lima ma foog man na bal yee tàkk rek na taloon day jóg wéq yi matt yi gaj yi ci bal bi nag laa wax waxuma la kenn ci bal bi rek ñun <laughs> daal xam na fa bal bi lu mu gën a rafet duut yeeg passé lu mu gën a rafet na bal yi dugg rek góor balu moo mat góor tam ñu lay wax fa balkat may dugal dugal nag bu ma ko waxee ca kaaya laa lay wax na bal yi dugg rek barke yombal xaam lakk ba bal yi dugal mooy tax ñu ni jël nga coupe du monde bal yi dugal ñooy tax ñu ni dóor nga na bal dugg rek ala acci amul bàyyi noonu la rek Moussa Ndiaye nag Sénégal gi yëpp a ngi lay xaar Sénégal seedeel na la ni ngay football bi ngay def man nga ko waaye tamit Sénégal ñi ngi ñaanal suyeur yëpp ak saa Sadio Mané bàyyiwuñu kenn yàlla na jàmm yàgg Qatar daal bëgg naa li leexi rusuli ak mbokk bu gaynde defar retour à Sénégal indi indaale coupe bi daj dëpp gi loolu kese la Moussa ala accu rek jàppal sa soxna si bu baax a baax ca xam ni borom ñaari numutu numutu yi jig na la